sadik lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay mbokki lu xew tv ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëriñ Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ko wér ñaanal ko sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes ñu yóbbaale këru kilifa diine yépp ngeen ñëw àndaat ak seen mbokk seen xarit Abdou Lahad ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ leen indil ci lu xew TV di seen waxtaanu koor ngeen xam ni ñoo ngi ci ñeenteelu épisode bi ñu doon waxtaanee koor ak li aju ci koor xam ni yàlla na suñu boroom kat nee na koor gi boo leen ko wooree na ngeen ko war a wooree mën naa am kat mu def ci yéen ak ragal yàlla kon jeexitalu koor mooy mu def ci yow ragal yàlla akramakum indallahi atqaakum ci gën fi nit ñi gën fa yàlla mooy ki ko gën a ragal te neewoon naa leen démb wa taawunu alal birri wa taqwa laa alal ismi wal ay jullit dana war a jàppalante ci baax kon weeru koor dafa ñëw ngir war a gën a boolewaat jullit ñi ndax jullit ñi yàlla daa bëgg ngir ñu booloo doon benn wax waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu yàlla loolu la bëgg ci diine mooy booloo doon benn su ma nee booloo doon benn nag mooy képp kuy wax asadu an laa ilaha illa allah wa asadu anna muhammadan rasulillah sëriñ tubaa nee ko noonu képp kuy génnee ci gémmiñam rek baatub laa illa allah sëriñ tubaa nee na ko noonu kon nag ki nga xam ne roqoon noonu ndax yéen bokk yàlla bokk yeneen bi salaa salaam la la war sa diggante moom mooy rafetal kon koor dafa ñëw ngir bu war a gën a boolewaat jullit ñi waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu diine ay nit mën nañ cee wuute ay gis waaye bumu tee ñépp xam ni ay jullit lañ moo xam kii murit moo xam kii tijaan moo xam ki xaadir moo xam kii laayeen moo xam ba ci ibaadu rahman bi ñoom ñëpp ginnaaw ban ne asadu an laa ilaha illa allah wa asadu anna muhammad rasulillah ay julit lan tijaan bi warut bañ murit bi murit bi warut a bañ xaadir bi xaadir bi warut a bañ laayeen bi laayeen bi warut a bañ ibaadu bi ndax ñoom ñëpp ñoo bokk asadu an laa ilaha illa allah wa asadu anna muhammad rasulillah ni ni gëmee yàlla ak ni ni gëmee rasulillahi ak seen dégg-dégg ci diine mën naa wuute waaye jëf ci moom génn jëf rekk la mooy kat ku def lu baax sa bopp goo ko defal ku def safaan it sa bopp nga ko def man amila saalihan man asaa fa alayha kon dafa ñëw ngir boole jullit ñi ñu doon benn moo tax koor gi yàlla sant du ñëpp di ko defandoo waaye ci biir koor gi yàlla sant gi ko sant jeexital gi mu a am ci ñun ñun jullit ñi mooy jullit bu ne li tax suñu borom subhaanahu wa taala di sàkku ci ngay génn sa alal di ko jox niiw doole yi lim ci jublu mooy ku am ku am dib jullit sa mbépp moroomu jullit bu ñàkk ndimbal war na la sa diggante ak moom moo tax ndimbal loolu ne muy baree ci weeru koor noonu la war a gën a baree bu koor gi jàlle xam ne képp ko yàlla jox wërsëg ngir nga séddale moo tax moo tax yàlla ne woon seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa masaila fala tanhar nit sax bu ñëwee laaj la amoo loo ko jox maslaa wala moom xam ne li ko dal ba mu laaj la soxla mënoon na laa dal kon yàlla su mi ko teg ak ñàkk yàlla mi la jox wërsëg ngir nga dimbali ci ña nga tax kon weer wi weeru dimbalante la waaye weer la woo xamante ni weeru gën a delluwaat ci yàlla la lan mooy delluwaat ci yàlla mooy gën a xamaat ni ñun ay jaam yàlla lan te yàlla li tax mu bind nu mooy ngir ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa bu liya'buduuni yàlla nee na bindu ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma te jaamu gi ngeen may jaamu defu ma ko ngir bëgg ci yéen alal ndax alal ku ko bëgg yàlla la ko jox santuma leen ngir ngeen jaam ma ngir ngeen jël ñam woo leen may jox yàlla nee na soxlawu ko maa uridu minhum min risqin maa uridu an yutimuuni ndax yàlla nee na ku am wërsëg maa la ko jox ndax man may arrazaq waaye yàlla nee na ku am kàttan lu kàttan nga rëy rëy yàlla nee na sama kàttan ngoogu maa la ko dénk ndax man maay zulquwa maay borom kàttan bala nga cee xam dara président de la république bi fi newoon di Senghor wala ki fi newoon di wala ki fi ne woon di Ablaye Wade ba du fi nekkee yàlla dénk leen kàttan kàttanam fu fu nuy génn motaar yi dar leen fu nuy nelaw nit ñi garde leen waaye tey ba yàlla jëlee kàttan googu jox ko keneen tey kàttan nga daa dem tuxu ca keneen kookoy la ñuy garde waaye ku yàlla mën a dégg kàttan nit lu kàttan ngi yàgg-yàgg ci yow boo yàggee ci àddina da nga mujj ci biir suuf moo tax yàlla ni ëllëg yamal xëyam ku ma mës a jox alal ku ma mës dénk pouvoir ak koo mën doon ci àddina yàlla nee na daal bis daal dana ñëw ñëpp xam ne dama leen a dénkoon waaye lépp ci sama loxo rek la nekk man yàlla mooy li ma leen mulkul yawma lillahi alwahidil qahar kon borom boobu subhanahu wa taala bind lépp nga xam ni moo nuy dundal moo nuy rey ëllëgin moo nuy dekkal qulillaahu yuhyikum summa yumiitukum summa ilayhi turjaun yàlla moo ku fi indi dikk ci jamono rek yàlla la fi indi yàlla nee na képp koo xam ni sa bakkan jël na jël naa ko muy faatu foo ko gis mu dugg fa rek maa yónni malaaka bi ngir mu ñëw jël si sa ruum waaye yàlla nee na ni ma amee kàttanu dundal nit am kàttanu rey nit noonu laa amee kàttan nit ëllëg ma dajalee leen taxaw ci sama kanam te bis boobu bis bu ma bàyyi xel la bis ba nga xamante ni kenn ku ne sa jëf yàlla da koy takk ci sa baat bisu penc ku sa jëf yàlla ci sa baat la koy takk nga xam ne sa baat bii boo ci takkee lu baax lépp lu bon nga am yaakaar sa bopp alaxira waaye bu dee li nga takk ci sa baat ay ñaaw téef ñëpp tuyaaba yi wala xiyaas bi laa yam ci yàlla musal te yàlla nee na kenn ku ne sa jëf ëllëg moom laa lay takkal sa baat kon fexeel ba yow li ngay takk ci sa baat na tuyaaba ga ëpp mooy yàlla ga na tuyaaba ga ëpp mooy yàlla gi wa kullu insaani alzamnaahu taairahu fi hunuqihi wa nuxriju lahu yawma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuuran iqra kitaabaka wa kafaa bi nafsika al yawma alayka asiban yàlla nee na kat kenn ku ne dinaa jël sa jëf takkal la ko sa baat te duma ca yem de iqra kitaabaka xam nga weeru weeru dëgg mooy ëllëg nga taxaw ci kanamu yàlla jàkkaarloo sa téere jëf ngay wax la nga doon def ci àddina alaaxira ku ne yaay nettali sa jëf koo mus a jëw yaa koy waxal sa bopp koo mus a liggéey ci sëriñ ngir mu faat ba njabootam bañ a teg yaa koy nettali sa bopp fii ci àddina képp koo am doole ba tëjoon ko kaso yaa koy nettali bi su pénc yow mi doon ñaanal ñaan ñaankat boo xam ni la nga doon ñaan xam-xam bu ñuul la daal te yàq doomu aadama yi ba liggéey yaa koy nettali sa bopp yow mi nga xam ne yaa doon ci biir kër jàmbur yi di sàcc ëllëg yow yaa koy nettali sa bopp yow mi nga xamante ni yaay toog yaay toog fii nga toog nit ñi def ak jubadi te kenn du ko gis te yaa koy santaane ëllëg boobu yàlla danaa la weer yow it ñépp nag nan sóor ëllëg bis ban taxaw ci kanamu yàlla iqra kitaabaka ah sa téere jëfa ngi ni jàngal ko sa bopp foofu la weeru am dëgg nga taxaw nag di nettali la nga doon jëf maa jëwoon diw maa ràmbaajoon diw maa jaxase woon mbokk diw maa tàqale woon kër diw maa taxoon diw diw du nuyoo yooyu yëpp ëllëg boobu day leer kon foofa nag ku fa bañ a sonn fii ci àdduna nga koy waajale mooy axastu mi dun yaahu zaadi li jinaan Sëñ Tuubaa nee na mosuma ko jàppee kër ba ma xamee ni kenn du fi sax laa ko def yóbbal rek ngir yowmal xiyaam ñu ñëpp ay moodu moodu lan moodu moodu nag bu demee Italie te duy nelaw ay compte bancaire am xaalis du ci musa ne ñi bàyyi si fii senegal du leen musa yónnee dara waaye kon ñun fii ci àdduna ay moodu moodu lan waaye sunu yóbbal bi su penc mooy yiw mooy tuyaaba kon lépp lu mën a def ngir mën a yokk sa yiw sa biir bàmmeel yokk sa yiw ngir yomal xiyaam def ko te yàlla rekk tax def ko te yàlla rekk tax bu ci gërëmu nit bu ci xool xarabu nit bu ci sant nit waaye def ko rek te yàlla rekk tax ndax jëf ji yàlla nangu ma jëf ji nga xam ne yàlla rek a tax nga def ko innama nutimukum li wàcci laahi laa nuridu minkum jazaan wala sukuran jëf ji ma jëf daal xaw xaaruma ci ku ma ci xarab xaaruma ci ku ma ci gërëm waaye dama ko def te yàlla rek tax te jëf jooju rek la suñu borom di fay ndax inna allah alim bi zaati sudur yàlla nee na li ne ci xol yi xam naa ko kon ki xam ne xam na nag li nekk ci xol yi suñu xol yi lépp luñ ciy denc na nekk lu nekk dëgg ci ñun waaye bañ weex na lool waaye deret ko lal di wane ak cofeel ci nit te boo wéetee boo mënee am pexeb yàqal ko yàqal ko loolu du màndargay jullit jullit day yar benn kanam day weex tàll baa mu ñuul kukk baa mu xonq coy waaye jullit yorul màndargay ñuul weex ak ak xonq muzabzabina bayna zalika laa ilaa haulaai wala ilaa haulaai jullit dëgg du yor màndargay naafeq mooy tey nga weex suba nga ñuul suba nga xonq tey nga xaritoog nit ëllëg nga ñaawoog nit fu koo nekk moom muy sa xarit du dégg mukk lu ko naqari boo leen merowee foo toog di wax ci moom daram lu ñaaw loolu du màndarga jullit jullit daal bu demee ba ibbi gémmiñam day wax lu baax baa mu tëj gémmiñam loolu la xadis sayyidina Muhammad ba sallallahu alayhi wa sallam jàngale mooy man kaana yuminu billahi wa yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut kon loolu lañ leen indiloon tey seen waxtaanu koor ci lu xew TV ngeen àndoon ci seen mbokkum taalibi Abdoulaye Aw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu